de Sunu People, euh, merci de nous recevoir chez vous, où que vous soyez. Merci beaucoup. On est très heureux de vous retrouver encore une fois, mais avec une toute nouvelle émission intitulée Galendanan. Galendanan, une émission spécialement à la rencontre des célébrités qui vous permet vraiment de savoir tout ce qui se passe dans la vie de vos stars alors tey ci suñu premier numéro ñu am mbégte dalal bu baax xale boo xamante ne bi mu ñëwee ci musique sénégalaise bi yàggul mais elle a quand même su s'imposer ba gagné place am place bu am importance nag fii nga xam ne moom mooy Sénégal elle s'appelle tout simplement Rema Diop euh, ñu xam ko ci diggante Tëngéej Yoof ak Bargny comme elle a l'habitude de le dire euh, ñoom moom nag dañ waxtaan ak moom dinañ ko laaj euh, depuis falaay langee ba tey fan la nekkoon ak projet yi aussi ay question lay doon yoo xamante ne au cours de l' émission ko laaj mu indi ñu ci ay tontu incha allah mais pas avant que moo koy bàyyi mu nuyoog Sénégalais yi après ñu dugg ci waxtaan bi vraiment. maa di nuyu Euh, di leen jaajëfal. Mhm. ci invitation bi. et mhm. euh, di nuyu tous les internautes de Sénépeople. Mhm. c'est un plaisir pour moi d'être euh, votre invité. très bien suñu people voilà comme ni ma leen ko waxee moom xale la boo xamante ne bi mu ñëwee ci musique sénégalaise bi yàggul mais quand même fexe na ba liggéey loo xamante ne tax na moom ñu boole ko ci ndaanaan yi alors vraiment. ndaanaan euh, nga léegi on peut le dire et osons le dire parce que nag wane nga ay preuve yi tax tey ñu war la mën a boole ci ndaanaan yi est-ce que mën nga ñëw ñun un tout petit peu fan nga jaax les débuts c'était comment. waaw déjà euh, Rema Diop. Hmm. doomu ñi la doomu Tëngéej ak Yoff. donc euh, on a commencé il y a pas longtemps daan nañ def musique depuis le bas hmm. mais euh, condition bi pour ñu pour ñu continuer woon pour ñu. def ko benn carrière professionnelle mmh. c'était ñu am bac donc à l'obtention de mon baccalauréat s mhm. ci la doogu dugg ci ci musique en 2018 très bien mhm. euh, bokk nga quand ci ñoo xamante ne à leur début euh, ñoom ñoo doon xam ne ni que on peut faire la musique euh, tout en l'alliant avec les études est-ce que alliage boobu yomb na yombul parce que parce que jàng rek c'est c'est vraiment difficile. Mhm. jàng yombul surtout na nga boole ci musique. musique na gën a metti mhm. encore mhm. donc euh, c'est pas facile mais li may faral di wax rek euh, il faut savoir se tracer un tableau de priorisation. reconnaître ses priorités et ses nécessités et suñu borom dañ la ci jàppale. ok euh, à tes débuts c'était les covers. voilà bëri na li ñu doon gis vraiment bon doon laajte xale bi kan la ci euh, cover yi mu doon def euh, di jël ay woyu ñi nga xam ne ay ndaanal lañ Sénégal fii di leen euh, di reprendre aussi seen ay morceaux cover yi c'était comment nan nga doon defee choix yi ñii dañuy doon say artistes nga nga nga reprendre seen seen wala tu le faisais pour juste le simple plaisir de de les reprendre nan la doon demee. cover ñu ci bëri ci lañ xam. parce mhm. tout le temps. ku ma woy woyam mhm. parfois kooku lañ may jël dàkkante la jox ma turam très euh, ma koy def nag euh, ñi ma daan def seen cover yëpp dafa fekk ne ñoom dama leen di déglu en plus ma sopp leen comme ni ma koy wax rek man aw ma xaaj ak seen mhm. donc ñëpp laay déglu que sa soit les sénégalais les mhm. maliens ku ci mënti doon dama lay déglu donc euh, parfois nag ay ay nit ñoo may sollicité comme nit ñëw ne ma man de Aïda Samb laa bëgg nga woowee ma ma woowee la Aïda Samb. Coumba mhm. Gawlo et tout. Mhm. donc noonu la noonu la. d' ci Coumba Gawlo boobu sax la yem parce que bëri na ñu bëri ñoo xamante ne euh, buñ la gisee rek automatiquement dañuy xalaat Coumba Gawlo parce que tout simplement vraiment bu wëyee sa voix elle te donne Coumba mu doon loo xamante ne du man rek maa ko wax. c' est quelque chose boo xam ne sénégalais yëpp dañu koy wax est ce que Coumba Gawlo mi nga xam ne yaa ngi prendre ay morsom am nga occasion gisante ak moom est ce que mus naa am. non pour de vrai euh, amaguma occasion a ma amaguma occasion dégganteeg moom. Mm-hmm. mais c' quelque chose boo xam ne dama koy def avec fierté parce que c' est une personne que j'admire mm-hmm. c' une personne bi nga xam ne dama ko respecte je la respecte. très bien de par sa sa façon de chanter. Mm-hmm. mais de par son caractère. et euh, son leadership. voilà mais euh, tey bu xalaat nga un jour. voilà un éventuel featuring ak Coumba Gawlo loolu na neex sénégalais parce que euh, tey euh, on peut dañuy noter absence Coumba Gawlo lu bëree bëri ci musique sénégalaise mais tey euh, vraiment bu woy dong da sa day demaat ci Coumba Gawlo est ce que tey mën nañu xaar benn featuring boo xamante ne yow di nga ko ko demander wala même yow boo deful sax paa yi mu am ñoo xamante ne dinañ dox paa bi featuring boobu am. sa ah, diggante pourquoi pas ça mhm. ça me ferait plaisir. parce que ku ci nekk. Mhm. bëgg nga ki ngay ki ngay roy wala ki nga xam ne ne dafa dafa bokk ci say ci say euh, idole. Mhm. la moindre des choses mooy nga am featuring ak moom. donc quand tu es artiste nga nekk jeune. nga fekk fi ñi nga xam ne ne mag ñi la. da lay da lay neex nga nga am featuring ak ñoom. muy Coumba Gawlo ak képp ku mënti doon. ok alors euh, Falaye Langué euh, ñëw après cover yi voilà après yenn ci ay single yoo xam ne defoon nga ko mais Falaye Langué ñëw mu doon doon benn son boo xamante ne ça cartonné et jusqu'à présent mi ngi cartonné est-ce que mën nga mu ñëwal euh, boobu euh, nga ci li nga ko liggéeyee woon les textes paroles yi ni mu xam nga musicalement est-ce que mën nga mu ñëwaat ci liggéey boobu nga ne liggéey bu jaar yoon la woon. déjà Falaye Langué c'est la mm-hmm. suite de Asgor. Mm-hmm. donc Asgor ba ñuy ba ñuy génn Asgor lañ njëkk a génnee. ñu ci doon euh, wax lan mooy base relation ñu ne la. ñu xool tendance yi nga xam ne ne moo am ci mi ñu dem ba nga xam ne dañoo gis ne ngor dafa xaw a raar dafa hmm. réer hmm. sax du moins surtout ci moment bi ñun waaw surtout donc euh, ñu doon jéem a waat nit ñi lan mooy base relation hmm. muy ngor que ça soit amical comme un a et tout mm-hmm. ngor dafa nekk li nga xam ne mooy base bi ñu pare ci asgor ñu ne on veut faire une continuité on veut mm-hmm. pas jugee ci asgor mm-hmm. wax lan mooy base relation ba pare léegi boo waxee base relation ba pare da ngay wax lan mooy tes relations donc euh, Falaye Langué c'est un hommage à tous les couples nit ki nga xam ne da nga nekk ak sa borom kër ba dara doonu lay dara mu lay jàppale Euh, ci sa liggéey ci sa jàng ba suñu borom am lum la war wërsëgalee. dafay rafet nga mhm. delloo ko njukkal. parce que le petit c'est le petit geste qui compte. Mhm. on a beau avoir des millions on a beau avoir des milliards. Mhm. mais gest yu ndaw boo ko defee ci peux toucher la personne. donc euh, fa laay laange loolu la. ñu am possibilité nag liggéey ci ak Chérifou. Chérifou di sama frère. ma koy nuyu de passage. Euh, ak waa Label Rock Team mais aussi ak Jess. Jess bit moom moo tëgg bit bi. ñu liggéey ceeg Chérifou Rock Team ak euh, kii Zizar euh, Zizar yes Zizar donc mm-hmm. moom moo def video bi mm-hmm. mu nekk aussi nit ku baax nit ku mm-hmm. humble falaay laange mën naa wax ne ne sot la rek parce que ñëpp ñoo ñëw participer ci pour ñu am li ñu am donc falaay laange c'est pas moi c'est le Sénégal très bien alors falaay laange succès bi don loo xam ne bi mu ñëwee ñëpp voilà presque tout le monde parle de Rema xale bi mën na woy texte yi voilà dooj bi nga dooj nag kii bi <laughs> ci texte bi doon loo xam ne vraiment jaaxal na ñëpp alors le succès est-ce que euh, xaaroon nga succès boobu bien avant ngay woy son bi. déjà mën naa wax ne xaaroon naa ko. parce que mhm. Falaay laangee bañ ko liggéeyee ku ko déglu. da nga da ngay da ngay naan ok c'est extra. Mhm. donc succès boobu noonu xaar nañ ko xaaruñu ko. Mhm. et euh, damay remercier sénégalais parce que c'est pas facile. nga dugg studio def son nga ñëw ñu encaissé ni nii nii nii nii. Hmm. et jusqu'à présent Falaye Langue gëm naa gis naa ne mu ngi def. oui mi ngi ça soit au Sénégal hmm. comme à hmm. l'étranger. ma ci ay retours yu positif vraiment. donc euh, je remercie les Sénégalais. parce que lépp ñoom la. on a beau chanter quelque chose de de bien. mais su amul koy déglu su amul ñu koy consommer. ça n'a pas de sens. très bien euh, bi mi ngi cartonné ba tey Sénégalais doyaluñu mais vraiment euh, comment tu peux rester pendant sept mois. voilà période bi nga xam ne sénégalais yëpp jox nañ la bopp nga génne leen benn son bu dóob benn vidéo bu nice avec une très belle qualité voilà ci côté réalisation bi après nga toog sénégalais yi namu namm la defaatoo dara yënguwoo sax loolu dañ lay gis nii ak benn voyage boo xamante ne après naa ci ñëw après mais lan moo waral tekk tekkaaral boobu gisaatuñu vraiment déggaatuñ ko ci ay produits lu dul peut-être ay émission wala yenn yëngu-yëngu yoo xam ne mi ngi ko doon def lan la quoi da nga nekk lëlu pour génnewaat leneen lu ko gën a tar wala boog da nga fa jaaree rek taxaw parce que ay question la daal yoo xamante ne vraiment sénégalais yi bëgg nañu xam parce que sept ans quand même na ci vraiment mi nga xam ne sept mois plutôt ah, nga xam ne ñëw nga dugg ci xolu sénégalais nii di la xaar ak yeneen produit parce que da nga nekk ci xolu sénégalais c'est quoi le problème. Euh, y a pas de problème. Mm -hmm. y a y a y a vraiment pas de problème. c'est mm -hmm. juste que Falaye Langué. Mm un tube tube la. Mm-hmm. c'est un hit. Mm-hmm. donc munoo ñëw. précipité génne benn affaire boo xam ne ce sera en dessous de Falaye Langué. très bien tu comprends. Mm. donc euh, loolu la c' est juste ça. Mm-hmm. dañoo bëgg lépp li nga xam ne ne génne nañ ko sénégalais yi gis ci seen bopp. Okay. que ça soit en mélodie que ça soit en parole. Okay. Euh, man je fais de la musique mais mm. je me dis que musique bi may def. tant que paroles Euh, amul lu dara amul conseil wala amul leçon bu ci nit tiire mm-hmm. je me dis que loolu du musique. ok tu donc mm-hmm. man damay insister ci samay mélodie mais aussi mm-hmm. damay insister samay paroles. donc damay wax sénégalais yi que bu ñu yàkkamti. incha allah très bientôt. ci 2022 mm-hmm. bi mm-hmm. dinañ am leneen li nga xam ne ne moo raw fa laay laa ngeen. voilà muy euh, loo xamante ne mën nañ ko xaar je pense que loolu c'est en exclusivité parce que loolu Sénégalais yëpp euh, yàqamti nañ ko mais vraiment il faut que ñu wax également ci euh, facilité bi nga am ci côté variété bi ngay def déjà vraiment boo gisee ci silam voilà da ngay da ngay da ngay da ngay am impression que ni vraiment war na mën a wóyal. monde bi yëpp voilà parce que da am facilité euh, ci ci sonorité yi voilà ci ci ci paroles yi aussi ci style yi aussi fépp ngay laal lan nga nan nga liggéeyee loolu ba mun a am facilité wu tey la làkk boo bëgg a làkk tey da nga am facilité bi pour woy ko euh, beneen culture boobu ga laal aussi seen culture aussi da am facilité bi comment tu a fait pour euh, am facilité boobu. voilà loolu c'est juste naturel mais mhm. aussi am na lu travail. Mhm. Euh, en plus de ça études yi aussi permettre nañ ma ko juste un conseil que j'ai l'habitude de donner mm-hmm. di ñaaxaat xale yi boo bëggee def musique en même temps di jàng mm-hmm. mën na nekk mm-hmm. on peut allier les deux nag boo amul benn niveau intellectuel bi pour maîtriser des paroles sax wala maîtriser beneen langue tu tu as ce problème comprendre nga donc euh, il m'a fallu des efforts et euh, di déglu aussi comme je l'ai dit tout à l'heure damay okay. déglu mm. c'est-à-dire man je me limite pas au Sénégal mm. je limite pas en Inde je me limite pas en Côte d'Ivoire donc hmm. damay déglu ñëpp loolu nag moom may permettre tout le temps may may mën a am benn aperçu ci ci ci yeneen musique yi très bien alors euh, tu euh, limité fii ci Sénégal donc dinañu permettre aussi ñu dem directement ci suñ question bi ñu la bëgg a bi la bëgg a poser parce que tout simplement gis nañu vraiment mu effectuer benn voyage boo xamante ne euh, biir Allemagne la woon lan moo waraloon li nga xam ne moom mooy voyage boobu noonu ak lan moo nekkoon projet boobu noonu. waa déjà projet boobu. mu ngi mhm. tudd griot tubaab. ñu ngi ñu ngi ko bokk ak ay allemand. Mhm. ak ay uh, yeneen nationalité aussi y a des Gabonais y a mm-hmm. tout donc euh, ñu ñëwoon di def fi benn uh, genre sélection mm-hmm. alhamdoulilah mon frère Kanjalo, mm -hmm. Welma et mm -hmm. moi, on été choisis pour représenter le Sénégal fële ci Allemagne. Très ñu dem fa di def benn album boo mhm. xam ne ne c'est c'est du jazz. Okay. beneen beneen genre musique la. du du leneen. Mhm. mu tudd griot tubaab. Mhm. donc c'est c'est c'est des griots. griot comme griot géwël. ak ay tubaab. léegi nag loolu lañ combiné loolu moo ñu yóbbu almaañ ñu dem nag def euh, liggéey bu mucc ayib. di féliciter sama frère Kanjalo c'est c'est vraiment une personne extraordinaire. ñu dem liggéey ko et dinañ dinañ dina jàll à travers les télévisions du Sénégal. d'accord mais suite bi lan lay doon après euh, après voyage boobu suite bi lan lay doon projet bi est-ce que mën nañu xaar fii euh, Sénégal fii nii ngeen ñëw représenter waat parce que projet la boo xam ne quand même ça vous a permis ngeen dem euh, à l'étranger mu doon quand même loo xamante ne aussi ci parcours artiste aussi day baax sénégalais yépp ñu xam loolee nga xam ne mooy projet boobu ngeen defi est-ce que tamit projet boobu suite bi dina ñëw Sénégal ba sénégalais yépp miinante projet boobu. ils mhm. vont ils vont bientôt venir au Sénégal donc bu ñu ñëwee Sénégal mhm. dinañ fi amal ay euh, ay ay festival parce que mhm. comme ni ñuy def festival yooyu en Allemagne nag ñooñu dañuy dund musique donc dinañ fi amal ay festival dinañ dem festival jazz dinañ fi ñëw ñu ñu ñu jouer projet liñ fa def noonu continuité la quoi fii ba 2023 2024 projet boo xam ne c'est à long terme aussi on va on va repartir là ba jouer des festivals et tout donc c'est un projet à long terme très bien euh, mais vraiment sa voyage bi premier voyage bi nu mu demee vraiment rek sa <laughs> première fois ci biir avion bi c'était comment. non man man l'habitude de voyager. ok man j'ai l'habitude de voyager. c'était pas mon premier voyage. Euh, non non non, non j'ai l'habitude de voyager je okay. Euh, plusieurs fois parfois. nekk ci business yeeg yooyu donc. très c'était mon deuxième voyage. pour cadre musique. a a siiw parce que yële na j'étais à hmm. Londres et mais bii mooy sama deuxième voyage cadre musique parce que le premier voyage. Hmm. li nga xam ne ne ñu def musique c'était demoon avec des mhm. amis mhm. doon euh, def benn fête bu ñuy def foofu noonu mhm. donc c'était mon deuxième voyage mais voyage bi nga xam ne c'est vraiment instructif parce que ça m'a permis de m'ouvrir par rapport à d'autres horizons par rapport à d'autres types de musique xam ne ñun li ñuy def nii c'est bien beau mais dese nañ lu bari parce que déjà ci ñooñu dañoo jàngal ci euh, ponctualité on te donne à dix heures 9 h cinq tous les musiciens sont là. Okay. en plus c'est des grands grands grands musiciens. Mm-hmm. ma leen di nuyu de passage ñi initier projet bi Pape sa Mori Seck ak euh, Mike Helting c'est un grand pianiste tout. donc euh, ça ça ça m'a vraiment permis. Mm-hmm. de m'ouvrir à d'autres horizons xam dëgg dëgg dëgg que man li may def nii. Mm-hmm. c'est juste le début. Okay. il nous reste beaucoup de choses. très vraiment euh, ak featuring yi parce que vraiment euh, gisaguñ ko benn yoon mu def ak ay artistes ay featuring est-ce que yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi bàyyi xel ci loolu pour bientôt ñu gis yow ak benn artiste bu mag fii ci Sénégal ngeen def featuring waaw incha allah pourquoi pas mën na nekk donc mhm. ñu ngi liggéey de. mais démarche bi euh, yéen a ngi koy def wala am na ñuy def ay ay démarches di ñëw envers yéen pour. Euh, xam nga xam nga parfois du yomb parce mhm. que boo doogee commencé. Mhm. mais bi gars yi dañ lay xeeb par rapport ak sa taille par rapport ak sa âge. voilà mais vraiment elle n'est plus à présenter. fii ci Sénégal ci côté talent <laughs> euh, ci côté mën woy aussi loolu on n'en disconvient même pas mais est-ce que tamit gisoo ni loolu. lu war la ci pays bu mel ni Sénégal jamono gi musique mi ngi dox bu baax a baax musique euh, dix ans ci ginnaaw ba fii on voit que léegi affaire yi mi ngi dox est-ce que tamit côté futurique bi aussi même bu nit ñëwul sax yow waroo mun a dem nga seet sa ji parce que bu dul dara bu nit ñëwee pour yow day def pour carrière am yow également boo demee da def pour sa carrière. si si pourquoi pas. Mhm. loolu c'est c'est dans le projet. mais mhm. xam nga doo tëb tëb rek. Mhm. nga ñëw nga ne ngay defar featuring nit ki parce que wax nga ko. parfois tu as un mag ñi mhm. donc c'est toujours un appel que je lance mhm. wax que ne artistes yu mag yi na ñuy jàppale xale yi mhm. muy man di keneen ak keneen ak keneen parce que euh, ki nga xam ne ne ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la gën a wax fi ngay toogee donc dangay gis aux États-Unis tu prends un grand artiste day ñëw jël artiste bu ndaw boo xam ne kenn xamu ko ki n'est pas connu def ak moom featuring juste pour booster kooku noonu léegi nag parfois nag euh, esprit de concurrence dafay am donc génération bu mag bi nañ jàppale ñu ndaw ñi parce que fii mën naa wax ne ñëpp mën a nag dañ ko bëgg. Mm-hmm. donc nañ ñuy jàppale Euh, di ñu xëcc ku ci nekk. xëcc mm-hmm. la kaa ñu def featuring wala nga mm-hmm. def benn groupe boo xam ne ne artistes yëpp ngay boole. Mm-hmm. yow artiste bu mag bi nga ñëw. nga nga épaulé xale yi ñu def ay featuring. que ça soit mag ñi di ko def xale de même que de le les euh, les artistes de la même génération. que ça soit man Dieyna Baldé Dieyla Abiba ñun ñëpp gëm naa ne war nañ mën a war nañ mën def featuring. très bien muy euh, message boo xamante ne je pense que le message est très bien passé ah gars ci xel rek Sénégal mooy jëm kanam mais ñu ñëw tuuti ci actualité fii ci Sénégal parce que euh, récemment euh, sa voilà muy ki nga xam ne moom mooy waali Balago Seck defoon na benn sortie fee nga xam ne moom mooy ca benn conférence de presse boo xamante ne amoon na ko fee ci CICES bon muy xam ne ni que lui c'est le number one de la musique sénégalaise euh, am na ñu bëri ñoo xamante ne ils l'ont mal interprété ñeen ñi jàpp ne waruloon wax loolu yow étant artiste nga nekk Sénégal sénégalaise yow ak moom ngeen bokk même milieu nan nga recevoir propos yooyu. waaw ku ci nekk nit ku nekk da ngay gëm sa bopp. man mhm. su ma neexee ma génn ma ne je suis la meilleure chanteuse du Sénégal. moom bu ko neexee mu génn ne il est il est le number one. Mhm. ku ci nekk ak li nga am yëg-yëg bi nga am. Mhm. donc euh, je me plains pas pour ça. Okay. il se considère meilleur il le meilleur. je me considère meilleur je suis la meilleure. Okay. juste ça nit ku nekk da ngay gëm sa bopp. moom loolu la gëm. gëm na ne se est le number one. Mm -hmm. le number one. keneen bu jógee tamit ne c' est le number one. c' est le number ci nekk yëg-yëg gi nga am. ok d'accord euh, ak euh, récemment euh, bëri na ay sorties yoo xamante ne am na artistes yi nga xam ne vraiment génnee nañu par exemple su ma la waxee yëg-yëg bu Viviane loo may wax. ci neex wala. ci noo ko xalaatee. c'est vraiment un Viviane man gëm naa ne lépp lu muy def rek dafay neex parce que déjà ci flowam dafa dafa dafa am flow. dafa am présence. Mm-hmm. ses clips lépp dafay dafay dafay doxal quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Adjouza, Moussé Bonheur. Moussé Bonheur, même, c'est, une sœur parce que mm -hmm. euh, Père Ouza, ci ñi ma jàppale la bokk. ok pour vrai. Mhm. parce que dama daan toog sax mu woo ma téléphone. vraiment mhm. defal lii defal lii defal lii. Mhm. donc c' une sœur. en plus ñi koy ñawal MB haute couture nekk samay samay samay frères aussi. ñoo may solo ci samay clip. donc euh, macha allah daal. ñoom ñëpp. Mm-hmm. que ça soit Adiouza mm-hmm. Viviane ku mu mënti doon. Mm-hmm. c' est des c' est des très bien pour terminer Titi ak euh, euh, kii bi album live performance bi nga xam ne <laughs> vraiment. <laughs> waa sama coup de cœur. loolu moom sama sama coup de la. voilà oh suñu suñu suñu ku bëgg la. man moom sincèrement étant jeune. dama dama ko bëgg ci mm-hmm. ay wayoom yu bari ay fase ay dabaax mm-hmm. du jeex quoi mm-hmm. donc macha allah di wax ne ne def na euh, coming out bu bu doy waar bu doy waar <laughs> euh, pour terminer du euh, avant de terminer sax laay wax avant de partir fee nga xam ne moom mooy en Allemagne woon nga fi benn coogu doy waar muy benn album boo xamante ne vraiment dafa duggoon rek kër ko <laughs> mu mel ni comme si vraiment moo téye album bi muy benn album boo xam te Mouhamed Niang bu Serigne Saliou moo ko doon def oo vraiment ci biir studio bi ñuy siin benn xale bu waane ci biir studio bi xam nga tey jii maa rafet mu ne kaar ba <laughs> mais vraiment sa collaboration ak Mouhamed Niang nu mu demee ba vraiment ngeen liggéey liggéey boo xamante ne wax dëgg yàlla tout le monde en parle ba jusqu'à présent son boobu noonu après màggal bi nit ñaa ngi koy déglu ba tey. waa déjà mu Niang ñaa un mm-hmm. frère. Mm-hmm. sama xarit la sama waay la euh, sama xamanteeg moom nag mu ngi jóge ci sama benn xarit. sama xarit bu baax soxna mm-hmm. Adama Gueye borom bouchique donc moom moo ñu mettre en rapport mm-hmm. bien vrai que Mouhamed am na rakam buy way mm-hmm. mais mu jóg mu ne ma mu ne tey yow laa santé ci sama album donc euh, Adama boole ñu moom aussi mu nekk nit ku modeste jël ma yóbbu ma studio ñu liggéey et vraiment mu nekk loo xam ne ne je pas regretté gis naa ci sama bopp bu baax euh, plaisir bu bari laa ci am parce que même boo gisee vidéo yi yi génn sax mhm. ñu dugal TikTok ak yooyu noonu mhm. da ngay xam ne ne plaisir laa am nag mhm. damay nekk ci biir studio bi di kaf di foo di fecc di woy et euh, vraiment c'est une personne que j'admire euh, par rapport à ses chansons par rapport à sa propre personne. Mm C'est une personne de, de, de, de vraiment euh, avec beaucoup de qualité. Mm bi mu bi mu vidéo, aussi, euh, ndax euh, retour voilà comme ñun ñëpp nu ñu yëgee son bi neex nañu mais aussi ñu ngi dégg aussi euh, ñu ci bëri di xam ne ni que xale bi dafa mën woy li mu kër ci son bi neex na est-ce que ñun ni ñu doon jotee yooyu aussi yow également retour yooyu aussi yaa ngi ko doon yaa ngi bu baax bu baax mhm. te dama leen di wax de. Mhm. yii ñëw nii. Mhm. moo dàq yii ñëw. non Mouhamed lim leen di waajal <laughs> beneen affaire la. incha allah mm. am naa ci retour yu mm-hmm. positif vraiment. Mm. ay kilifa woo nañ ma ci moom aussi defal na ma ci teraangu yu bari. Mm-hmm. ba di ma di ma invité prochainement. ci ci ay Sorano. Mm-hmm. ne ma ñëwal dama laa bëgg a teral. donc euh, vraiment c'est une personne extraordinaire. que je salue de passage. en tout cas kontaan nañ bu baax a baax vraiment déjà euh, man bëgguma woon sax waxtaan bi jeex parce que vraiment c'est une personne boo xamante ne dafa dafa exceptionnelle parce que euh, invitation bi rek yombul loon mais biñ ko ko waxee fee daf ñu ko nangul ñu ñëw euh, këram def ak moom émission bi mu dalal ñu aussi ak ay teraanga yu bëri lan mooy euh, say dernière kàddu ñu tàggoo ba beneen. waaw déjà di leen remercier mhm. waa suñu people di mhm. remercier tous les internautes mhm. aussi di remercier ma famille. mon entourage mon manager surtout mon manager Alga euh, moom moom macha allah mu ngi def liggéey bu mucc ayib li may faral di wax rek Alga manager wu ma juste ci musique daf may manager ci sama vie bu ma defee bu ma gëjee dégg sax daf may woo yaay booy dafa am lu ma la def ma ne ko déedéet donc kooku mm. yëg-yëg ak gëm gi ma gëm rek beneen affaire la donc di ko remercier mm. di remercier soxna aada moom ma lay mm-hmm. wax mm-hmm. Euh, aussi di am lu ma préciser mm-hmm. falaay laangee li ma koy wax rek falaay laangee li ci topp moo daak li ci topp moo dàkk di wax sénégalais yi nañ ma xaar. parce que entre Asgor ak Falaay Lange ça a pris mais Falaay Lange ak bii di ñëw incha allah. dina doy waar daal. kontaan nañu bu baax vraiment kontaan nañ et puis on bien que yéen ñi nga xam ne aussi yéen a ngi seetaan aussi kontaan ngeen tout comme ñun aussi nu ñu jëlee bànneex bi fii que vraiment voilà lii rek lañu bëggoon euh, fexe ba bégal leen on nesper bien que ni li ñu fi jëlee aussi neex leneen et que di ngeen abonné ngir bañ a leen loo xam ne suñu ay programme la biir suñu people merci beaucoup et à la prochaine fois